لا اله الا الله ام مختار جوب يال نكو يالا ييرم سيرين حبيب خامول وني بون توغون 24 هور وزي فنيو ادنا توكيا مانكو اه غور كي مون مان نكو اسي مون نكو اسي 24 هور كين وزي فول ادنا توكي خامول شيخو تيجانا تيريو ma ne ko fa maa baqiyal ma wax nga dëgg mag ñaa dañoo faa Maodo fi kulli buldaani wallaahi bi yëpp ma tax sëñ Babacar salaamaaleykum baqiyal kiraam wala li amul salaatul fatiha yi rek suba ngoon moo sebe réew am paas sax ba seeti seen sëriñ salaatul fatiha leen ko ah vidéo bi jeexagul de maa ngi dégg ba deman wala ma jox si ah, man jeex na ah, dama a romb lii dafa jeex na <laughs> waaw lii mooy lii lii li ngeen def c'est bien sax macha allah vidéo bi maa ngi koy doog a tey maa ngi doog a sëy mais dafay wane dafay firnde ñu waxoon mooy lii mooy mooy ñoom seen xam-xam c'est-à-dire Matar Sarr lii la mën moom lii ci li ci ñoom yii la def mooy lii voilà c'est-à-dire lii mooy diw sàngam nee na. daal di ñeex ku nekk daal di wax daal di fettaxu daal di dem lii mooy ñoom mooy seen yoon mais yoon bi ñu dugg moom nekkul seen nekkul seen yoon. ne Bass Abdou Khadre nee na Serigne réew mi moo moom de danaa ci seere ne bu réew mi amee jàmm tey amul dal lépp ci moom la ko yàlla jaarale. lu sëñ Thierno sëñ Thierno Giraud nga lay faral di nettali naan sëñ Omar Bayam daana wax ni. ñii di toog ci seen kanam di banque seen tànk yi na ngeen leen bàyyi xel ndax la banque tànk bankulum xel te lu ngeen def xam nañu ko daana wax ni nit koo xam ni booy wax ak moom la nga bàyyi ca wax ja lay gën a xam ca la nga wax booy wax ak moom war a bàyyi xel li nga wax biir waaw ah, léegi léegi foofu nag waaw foofu moom ñun sax ñun ñoom ñun seen lii ni muy wax nii nekkoon na dañ koo jubal nee na moom lañ doon déglu léegi le problème bi mooy fii Maodo moom déglu kee ca Maroc mooy tijaan dañoo am benn problème bu rëy mooy tijaan yi am benn équation bu ñu posé wu yàlla lépp lu muy def rek dafa am am na xikma bu nekk ci ginnaaw mooy équation wu ki nga xam ne moom mooy tijaan yi mooy Serigne Touba dafa mu nekk équation ci tariqa tijaan yi dafa am lu bari loo xam ne am na tijaan daf koo wax jëmli ko ci tariqa bi ak ku ko jël daal di koy bàyyi Serigne Touba daal di koy défier xaw ci lu mu yëgul lu <laughs> mooy équation la boo xam ne équation bu rëy la mooy sëñ Tuubaa am ku weddi ne da daan jël jëloon na tariqa tijaniya donte nit ñi dañuy werante ci kan moo ko ko jox des fois duñ tudd même ay taalin bugg ñu tudd kan moo ko jox ne saa gis ne foofu am ambiguïté fu nekk ku joxoon ku ko joxoon li nga xam mooy werd bi mais ala kulli xaal mu amoon na ci isnu xaas sëñ Tuubaa dem na mujj gi moom yéen di moo ko directement tariqa bi kon moom Ahmed Tidiane يعني انت بيجي خيون كطريقه بدرك ما جوني كطريقه بدرك ما ما في اذن مطلق طيب ليك بروبليم بي ام ما يعمل تي على هون كيف كو ديال تاريخ بدرك يباي فهم نعم؟ في باي كو دا غي طرق ان الاخره سين توبا خير باي تاريخ تاريخ بي كان دا غون لو ندي كو بولك بنن تاريخ سين توبا بولن تاريخ تيجاني ورد تيجاني بولك ورد تشازليه بولك ورد قدريه ديكو جوي moy li nga xamne moy hadaratul jumaa li nga xamne mom moy wazifa wax mo yepp ko dang ko bayyi ñetti yoon ñu làcce la yeneen bi làcce la seen wax ñoom eh, te amoo udur yeneen da lay bàyyi dañ lay effacé yow ci liste ba moom suñ suba moom da koo bàyyi ba pare yeneen bi kun di feeñ ko ci ko beneen wér c'est-à-dire bis bu ñu lijjanti wut pare <laughs> du ay reetaan c'est-à-dire lu lu c'est que fekkoon dëkk bu sérieux la duñ avancé une minute te lijjanti wuñu diggante Ahmed Tidiane Ahmed Bamba Ahmed Tidiane Ahmed Bamba moom ñaar ñëpp mënuñoo doon nekkoon rek ay wàllu am na ci kuñ ci doon ndax waaye ñoom ñaar ñu leen di ndax mais ñoom ñaar ñëpp. mënuñoo bokkandoo nekk ay wàllu lii mooy li am mooy mu neex mu naqari ndax dañoo indi mbir yoo xam dañoo mbëkkante ci lu leer nañ waaye dañoo indi mbir yoo xam ne mënut ta ànd waaye maa nga ne Sëñ Tuubaa dafa torox at nag laaxira Sëñ Tuubaa tariq tijaan bu ko yonent koy jox yoo xam ne mooy tariqa bi boo kooku da biir ay seytaane la am wala nga ne Sëñ Tuubaa dafa dafa joxe gam doon joxe. اللي هم يبدا ashadiliya qadriya tijaniya boole ko di ko ko fenn bañ a jàngal gi bañ a ay taalibe wazifa ba ñuy wazifa tegu ko fenn daa bëgg sax Sénégal musiba daal leen di daal leen di dal ndax comme ni ko waa ji waxee loolu mooy loolu lañ gëm ci wazifa te loolu de loolu suñu laajee dalil su ma dalil lan mooy dalil wazifa ñu naan ñu tudd yàlla daal li tudd yàlla kese ni ne fee di julli moom waxut ni ñu bàyyi julli de ni suñu bàyyi julli bàyyiwuñu julli woor ña ngay tudd dañuy mu ne ci ci dëkk yi sax difa difa ci jàkka yi difa jàng alquran difa wàcc alquran chaque jour su fekkee dañoo bàyyi wasifa day àdduna day tukki xam loolu kon nekkatul nekkatul dalilu tudd yàlla kese dafa lañ koy indilee euh, suñ tuuba <laughs> dafa teg bëtam feneen fu nekk doon bëtu mooy bëtu euh, fi Ahmed Tidiane tegoon bëtam léegi nag foofu nag mooy mooy mooy mooy xam ne lu jar a leeral mais wane waa ji day day nar nar yu tooy xep lu gaaw soo yoroon tuuti sutura xam ne day nar ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na àdduna maa moom nee na 24 heures àdduna tukki mooy balaa moo tukki yàlla sunu boroom dafay yëkkati li nga xam alquran ci dënn yi yàlla day yëkkati alquran ci dënn yi te àdduna tukki yàlla sunu boroom day yónni ab ngelaw goom dafay rey dafay rey ñëpp nit ñi dañ toogal ab diir ci kaw suuf nga xam ne du am ci àdduna kenn amul kenn kuy wax allah allah allah te seen dalil boobu noonu bokk na ñoom li ñuy tegtoo léegi di wax ne nit ki mën na dox allah allah allah mën na nekk zikr mooy dalil bi woon ne lii mu ay nar la mooy ne adduna bi dina ay nit dinañ fi des te duñ am ci kaw suuf koy wax allah allah adduna bi di kunne di am ba yàlla di ñëwee ki mbiram waaye ñu neen suñ bàyyee wasifa benn bis adduna daa tukki ànd na kon am na adduna am na jamono yoo xam ne wasifa du am moom ànd na wasifa àdduna àdduna existé na avant wasifa amul woon قلناوي وزيفا وزيفا نعم على كل حال am na tamit dëkk yu bari yoo xam ne wasi am mu ci àdduna bi am na dëkk yu bari yoo xam ne wasifa amul te dëkk yooyu noonu ñoo nekk ñoo dëkk yi ëpp ëpp jàmm dëkk ba nga xam ne moom fa lañu fa lañu fa lañu fa lañu suul ko indi wasifa naam am tremblementaire bu rëy boo fa am yàggul dara te jàpp naa foofu am na ay tijaan yu fa nekk di wasifa ay milliers de personnes daal di fay daal di fay daal di fay dee mooy seen diine ji lii kese la mooy seen ay nettali la ay xuraafaat kese la mooy nettali mbir yoo xam ne ma anzala Allahu bihimaa sultaan waaye léegi nag li nga xam ne moo leen jot moo ñu jotali ak ñoom te ñoom ñoo ñu tooñ ñoom ñoo ñu tooñ de fu ko nit mënti mënti mënti mënti mënti nekk te bëgg a àtte na àtte na àtte dëgg mooy ñoom ñoo ñu tooñ ndax ñoom ñoo fekk diine yàlla ji mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom daal di nekk ci ba faatu ba muy faatu yàlla daal di koy séeréer daal di wàcce aaya ñu koy jàng fu ñu toll al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lil islaama diina saxaaba yi ne yéen daal di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk lañ ko taggee mooy ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan moo ko njëkk a taggee dafa nekkoon ku xir ci jullit ñi xir trop trop trop ci jullit ñi yërëm leen trop rauf la ko yàlla jox rahim saxaaba yi daal di seedewaat te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñoo bàyyi ci yoon bu leer nañ layluha ka nahaariha boo xam ne taraktukum yéen taraktu alam xajatin bayda bay na yoon bu leer nañ yaatu nag ñëpp daal di yem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi daal di seede ne moom amul sax picc buy naaw tiim leen lu dul jàngal ne leen ca xam-xam tayib ñu nekk ci loolu jullit ñi nekk benn ay nit di génn nank nank yenn saa yi di indi ay mbir yeneen ba jëmi jamono Ahmed Tidiane ñëw daan ne yonent bi sallam lisaani xaalihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwuñu ci yoon bu yaatu bu leer nañ am na mbir yoo xam ne man maa ko maa koy génne pare askanal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu yonent bi ngeen doon gis sax di koy saxaaba yi di toog a moom kooku nekkul mooy dëgg-dëgg yonent bi am na beneen yeneen xaqiqatu muhammadiya boobu jotoo leen ko maa ko jot daa di jël fa nga xam ne ñëpp dañ koo bokk mu daal di koy tënk jël la ilaha illallah jël astaghfirullah jël alhamdulillah jël ay mbir daal di jël daal di koy tënk ci ay mbir naam daal di cay defu turam mu nekk tariqa wala ab santam wala sant nijaayam ndax tijaan tijaan sant nijaayam la mooy ndax Ahmed Tijaan yi eh, problème bu bàyyam problème bu rëy la demee équation la boo xam ne laaj na la équation bi te tontu wuñu ko ci wante loolu taxuñoo jóg taxuñoo jóg tey xam ne tijaan loolu sant yi ay nijaayam la moom sant yi nijaayam lañ ko lañ ko lañ ko jox mu woote woone moom mooy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu it beneen équation la ba tey kenn résultul ko amuñu dalil benn dalil ne moom sëtu yonent bi lu dut ne moom nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko gis daal di koy confirmer tayib te moom euh, te ku wax loolu moom sant yàlla la nga jox ku delluwaat ci biographie dina dina def fekk explication bi am ci euh, bàyyam ak euh, ndeyam lañ si kon muhim léegi mu toññ nag parce que dafa ñëw sunu li muy wax yëpp fekkoon na ko askanel ko ci yi nga xam ne moom mooy christianisme sunu yoon nekkul ci moom day féete ne ñu taxaw ne ñu taxaw ne su fekkee da ko askanel ci waxi boppam kese sunu yoon nekkul ci moom. day taxawee ne ñu taxaw ne leen saay peut-être mëna ñu leral ñi ñenn joxoñ ne yoon bi yoon islam mais dafa jël mbir gi yëpp dal koy askan ci islam ñun ñu doon ñu baax nañu yaru waxuñu ko dara sax dañ ko wax léegi nak léegi liñ ko laaj kessé mais lan moy lay bi lan moy dalil bi ñu ne doon ko fi laaje li ni lan moy lay bi ñu ne do leen ko fi laaje do leen ko laajé dañ leen kurus les kurus marché tul xam nañ ne fekkoon ne am nañ baatin baatin yortuñ ko dañuy nalaw ba yandoor ñuy dakk nelaw léegi ñu ne kon léegi dañuy porter plainte léegi nak mooy ñoom échec gu crucial mooy dañoo jàppoon ne ku wax Ahmed Dian da ngay da ngay da ngay torox dañoo déjà li njëkk échec bi njëkk am mooy ay ponk kalimaami Tijaan ñoo ci nekkoon doon jël werd da joxe werd xëy ba ko mais yemu ñu ne xëy ba ko dañoo xëy laaj ay dalil léegi nag ne ñun dañoo bëgg ay lay ci mbir mi ñu menacé leen nee na ne di ngeen di ngeen torox àdduna bi di avancé ñoo ñi gën a avancé dara jotu leen léegi ñu ne kon léegi beneen mbir mooy am dañ leen di dañ leen course di ngeen xam dañ leen duma ci baatin àdduna di avancé baatin mënut a judduma kenn daa mel ni léegi baatin ma xamul dafa dafa dafa dafa sirri gi dafa naaw. léegi nag leen dese léegi dafa soppeeku baatil. waaw léegi nag mooy leen dese mooy lan léegi dañuy porté peleen ni ñi da leen boole buur ngi laa tëj leen kaso. Eh, lii mooy di Faraada waxoon rek waaw lii mooy di Faraada waxoon rek uriikum naam illa ma waaw fi ñu jëm ak ñun rek. waaw fi ñu jëm ak ñun. mujj nañ wax lañ nan ko wax mujj na di jéew fépp waaye bu tijaan yi kenn fi defal léegi bës dañuy bàyyi ba procureur woote. naam fi ñu jëm ak ñun rek fi ñu jëm ak ñun mooy mooy fi Firawna mujjee ak Moussa rek daruni aqtul Moussa mais foofu lañ jëm ak ñun mooy koo xam ne day laaj day laaj dalil te dalil ba mu lay laaj mënoo koo indi da lay wax li nga nekk nii nekkut nekkut lu wér yi yar na nga koy wax ak teggin ñun li ñuy def rek mooy laaj dalil mais la mooy si dalil la am nañu droit nag lan mooy lay bi ndax léegi dafa am lu ñu bokk ngeen ne ñu yonent bi ngeen gëm ñu ne ok nangu na leen ko nga ne lii ci diine ngeen def la bokk ñu ne kon lu may lay bi ne yéen bokk indi nga ne doole ko fi laaj dëgg yàlla koo xam ne da ngaa amee lay da ngay kontaan ñu laaj la lay ki nga xam ne mooy yow su fekkee tariqa tariqa tijaan ñu tuddee tariqa mooy tariqatul ahmadiyya naam su fekkee loolu dëgg la wallahi kii gën a bëgg mooy kii ñëw taw ci penc bi naan ñu ngi laaj tijaan yi lan mooy seen i adilla ci la ñu gëm da nga koy bëgg na da lay permettre nga daal di ñëw daal di étaler yi doon seen i adilla kese dañoo ci boppam xam nañ ne yoruñu ay lay ci lii ñu gëm du alquran du sunna liñ ci yor rek mooy lii di waa ji di wax mu Ahmed Tidiane nee na mooy alqudul maktum naam qudbu zaman moom mooy mbiri looyu moom moom loolu ñun dak ñun amuñu problème ak yéen ci yooyu soo yemee ci yooyu waaye saa boo dee ne yàlla nee na wala yonti nee na ah booba dañ caa laaj dana koy dari so nag lii dañ ko war a fas ku ko fasul nangam di ko dajal li nga xam ne moom mooy moom mooy mooy de la kon nga xam kon mbiri yi ñu tudd nii amuñu ci ben lay kon so dege waji kon ay yegene ci saasi kon mbiri yi mënatu la nek tuddu la yalla ndax lo xamne aduna suñ ko bawee mu daldi tukki ci 24 heures tayib donte nit ñaa ngi julli di wor nit ñaa ngi julli di dem jakka di julli mbolo suñ baye wazifa àdduna daldi tukki 24 heures ne àdduna tukki kon lol kay mënatul nek ak jimmi rek tuddu yalla lol kay tuddu yalla ak plus plus gog ñun mom la lacc pas-pas boobu lañ bëgg xam fa lañ ko teg lan mooy seeni lay ci alxuraan sunna te nag ñoom nee seeni borom xam bind nañ tontu nañ ibbi téere yooyu rek leerul ñu ko wala mel bind na tontu ña nga xam ne ka nga xam ne moom da ko tuddee al munkirul jani ab ab ab mu nga ab kàccoor koo xam ne dafa ñëw di di di weddi tariqa tijaniya xëy nañ indi ñu seeni wax ñaar nañu lii may dalil bi nañ joxoñ rek nañ alam yaay ñu ne lii may dalil sangam du xool ndax lañ yëndi ay lay la wala du wala du wala du ay mu fa la da waxee rek mooy seen lii ñu nekk nii suñ dajaloon ñoom ñëpp seen i nit ak seen i ginne ñu jiitoog ñu mujj seen i mag ak seen rak rakk seen i sët ak tijaan bi jik ak bi tijaan bi bi mujj wallahi la ilaha illa hu ñu leen fukki junniyaat teg leen yeneen fukki junniyaat muy ñaar fukki junniyaat lu ñu mën a di benn lay wala lu jege nduru lay rek ki daal di dëgëral seen pas-pas bi ñu daal di ñu daal di ñu daal di nekk lu mel noonu nag soo ci nekkee te gas islam amoo ci lay ay nit taxaw ñu tuddee ay xale yu xonku cuur dañoo xam ne xamuñu dara ci ci diine faruñu ij di leen laaj ci ay lay mënoo leen a indil lay bu leen wedam loo mu leen lay bu leen noppiloo wala sax boo xam ne ku leen déggati ñuy wax dina xam ne ñii li ñuy wax ne dañuy topp seen bànneexu bakkan mais ñu indil layu leer fekkeen yow da ngaa nekk tax ci mbir mel noonu mënoo ko ci indi wallahi ba ko fa daal di dem seeti leneen balaa balaa réccu di balaa di wees balaa yàlla ñëw ci mbiram te nga yëg ne la nga nekkoon ay la da nga nekkoon la te say baay ak say maam nekkoon ca loolu taxut mbir daal di doon lu baax su fekkoon ne la bàyyi ak imaam nekkoon mooy doon mbir yu baax lool mooy dalil bi alaaj maa di doon tijaan ndax soo yëgaatee tuuti ca imaamam rek fekk ay ceddo kon Sëriñ Tuubaa wala boog du doon li nga xam ne tariqa bu du exister ndax kon soo yëgaatee tuuti fekk fa ay bàyyi maam nekkoon ci beneen ba beneen ba beneen ba eh, beneen tarix kon mbir mi nekkoon ne suñuy maam suñuy bàyyi nekkoon nañ ci mbir rek par force loolu dafa loolu dafa dafa dafa war a baax dañ koy jël natt ko ci li nga xam ne mooy alquran na la ci wër ñu jël la ci wër ñu delloo ko daan leen ñaanal yàlla sunu borom fekkee juddi lañ yàlla sunu borom daal leen di daal leen di jigal daal di espérer sa nag ñun njub ga ñu nekk njub mun na doon sabab ngir yàlla daal di ñuy tim ca tim ñu ñoom ñun ñooy <laughs> mais wax ni nag dina yéeme ci koo xam ne dafa gëm mbir yi mooy yéen sunu bopp ñun ñi mën naa am ñun yoon gi ñu nekk ci yoon li nga xam mooy yoonu sunna maanaam mun naa doon luy sauver mag ñooñu mooy ñun ñu ràmmu leen ñun mooy ñu nekk ci sunna c'est-à-dire ñoom mu ñun yoon bii ñu jaar ñoom ñu suñ tuuboon ci jaar yëpp tuut def ci yoonu sunna mën nañoo espérer yàq gi mag ñooñu yàq ci diire yàlla ji yàlla daal leen di naama booleeg seen i seen i seen i seen i sët daal leen di jéggal ngir moo yërmande yàlla sunu borom mu daal di koy jaarale ci li nga xam ne yiwu génn lañ ko am li seen i sët yi daal di daal di daal di daal def ko yoon bi ñu jaar mooy yoonu defar mooy du yoonu du yoonu yàq comme ni ko benn waay daal di tuddee ci suuf waa kër Seydou Ahmed si Euh, noo ne nuisible pour la société mais dañ koy wax rek mooy ñun yoon bi ñu jaar mooy yoon bi defar te mooy saw yoon bi defaral mag ñu ne mag ñaari mbir moo am moo ñu nekkoon ñoo xam ne fii lay jeexale ay nit ñoo xam ne ay nit la ñu woon te loolu mooy la am amoon yéene bu rafet am ay mbir yoo xam ne tàbbi nañ ci mu nekk ay njuumte ñooñu ki nga xam ne moo leen defaral mooy ki ñëw daal di joxoñ seen njuumte ba kenn dinañ ci topp kooku mooy ñu ragal seen seen seen seen seen liggéey waaye waaye ki nga xam ne moo ñëw. fekk leen ci njuumte googu noonu wala jël seen li xam ne mooy seen seen yoon bëgg lépp lu ñu mag ñi wax doon taw teg axoon sunna bëgg ko ne tasaare kooku mi lor mi ngi lor mag ñi loor bu rëy rëy rëy rëy kon yoonu ahlu sunnati wal jamaa mooy yoon bi nga xam na moom mooy défendre euh, défendre mag ñi mooy yoon bi àla kulli xaal bi nga xam ne moo leen di leen di jëriñ ci seen ci seen borom su fekkee ne dimbal leen nit ñi ba leen nekk seen i njuumte nit ñi daal di ko fay bàyyi yi daal di topp li nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di indi woon ndax lu dul loolu ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day doon seen xulawaal yowmal qiyaam wallahi xadim yéen dafa ñëw leeral lu leen demal mais yéen yaatal ñu ñu ñu xatal yonent bi daal di boyal ñoom ñu daal di ñoom ñu daal di ñoom ñu daal di ñu daal di ñu daal di tënk yàlla yàlla musal ci ci ci loolu barakallahu fikum fii nga baraka la wax sana laaw ilayk macha allah jàpp naa ne mbir mi leer na gannaaw ba tey moom <clears throat> dañ fi xawoon gëj ñëwoon tey pour doon reprendre at live yi fas yéene incha allah taala ci bis yi di ñëw <clears throat> ñu gën a defaraat qualité image ak yëpp bu soob eh, gën koo waajalaat waaye gën a tamit jëlaat beneen engouement incha allah taala ci live yi di di fexe bay bañ di dakk eh, di am saa su nekk waaye tamit di nekk barab boo xam ne képp koo xam ne xam-xam moo la yitteel ak gindiku topp diine ca nam wàcce woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne ëllëg doo dem ci kanam borom bi bokk ci ñay matt seeni baaraam di yooxu na ko yàlla subhaanahu da ko waxee di ko waxee ci alquran ca suratu furqaan yow ma yawdu zalimu ala yadayhi nga xam ne nii tooñkat bi dana matt ñaari loxoom naan aka neexoon ma bokkoon ak yonent bi aw yoon aka neexoon doonu ma jàpp diw defoon ko mu nekk sama péete mu nekk sama àndandoor ndax kat tariqa yi benn bu ci nekk Kaw Sas boppam la ko askanalee wala askanam la ko askanalee yow mi ci toppit kenn topp loowul la nag kooga yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom la ñu yàlla euh, moom la yàlla toppaloo te mooy ki ñu yàlla di laaj mooy ki ñu àndal ëllëg ñu dekki wala boog ñu euh, dugal ñu ci biir suuf yàlla ñëw taxaw junj ñu ko laaj ñu ci moom tontu googa de nekkut loo xam ne nii tontu wu làmmeñu kese la déedéet waaye ay jëf moo fay tontu foofa kon la chaque ne yonent boobu war nañ koo xam war a xam lan mooy ay njàngaleem naka la doon jaamoo yàlla su ko defee ñu tënku ca loola lépp loo xam ne nii doon na ko tere ak loo xam ne nit ñi dañ ko kéré gannaawam ñu noppal ci suñu bopp xam ne loolu yàlla laajut ñu ko wante naxekat yi tamit nekk ci suñu réew mi di nax ñenn ñi dem boo nit ñi. ci wàllu politik ñeneen ñi di leen mbubboo ci wàllu xarfa xuufa moo xam ak njabar laak yu ne mel ñeneen ñi di leen naxee ci wàllu diine te mooy sax politique bi may wax man dinaa daan wax ne yàgg naa wax gaa yi donte alhamdulilah léegi mbokk yëpp dañ lay jot ci téléphone lii de daa ngeen ñu ko wax daawuñu ko gëm daa ngeen ñu ko wax daawuñu ko gëm neewoon nañ leen seen gaa yi bëgguñ leen yéen faale wuñ leen yéen ndong yi loolu na ngeen ko teel a xam ngeen xam ne ñii leen yitteel mooy seeni poos ak seen seeni soxla ak seeni doom ak seeni soxna rek seen yoon nekkul ci taalibe yi seen souverance seen yoon nekkul ci jafe-jafe yuy taalibe yi di dund déedéet euh, bu indi woon benn gaynde muy lekk taalibe yi yëpp te mu am ñoom ñeen ñu yor feene seeni uppukaay ñoom ventilateur di leen upp seeni clim di leen euh, di leen upp du ñaan yàlla sax ci gaynde googu taalibe yi mucc ci maanaam tàllal seen loxo ñaan ci yàlla loolu sax duñ ko def Euh, maa ngi nettali fan yi ci benn groupe benn waaye di nettali ndeysaan doon ma nettali koo xam ne dafa àndoon ak moom topp ci tarixa yi topp benn waaye di ko liggéeyal euh, nee na ñoom ñaar ñoo ci nekkoon ba yàlla dogal kële moom mujj na wooyu ñu ne seexal nañ ko mu ñëw dakaar yàlla dimbale ko mbokk ma di ànd ak moom ba muy teewee ci dar dar ci jàkk ëll sunni yi ba ci la mujj ku desan ba yeewu dal di xam nax yi ci nekk yépp ñu dem ci dars bañ doon seetaan imam ba di leen nettali ka doon dafa def waxtaan ba di leen di nettali naxaate yu bari yu nekk ci tarixa yi bi mu waxee ba ci la sawaay waay tourné ne ko noo dëgg dëgg dëgg sëriñ diw mooy nangam mu ne ah, mu ne ko te boobu waa jaa ngi doo a commencé yeewu mu ngi xalaat nag léegi nax yi leen daan nax ba ñu ni ci tool ya mu ne dañoo nekkoon ci tool yi am benn at kenn faatu ci ñoom jëwrin yu magoon la woo ku ku doonoon jàmbaar ci liggéey bi la nee na bi mu faatoo ñu jël ko yóbbu ko dëkk sàngam ñu dem ci sëñ bi yëgal ko dañ ko yëgal sëñ bi mu ne sëñ bi ne leen yebal leen ne dem ñu denc ko ñu yóbbu ko ca dëkk ba suul ko fa ñoom ñu delluwaat ci tool yi da liggéey nee na ba nawet jot sëriñ bi ñëw indi aw jiw comme waa ji jàmbaar la woon ci tool yi yónnee ne nañ ko ko wool pour mu jox ko jiw pour mu jiyal ko ko nee na biñ bi mu waxee nañ ko woowal leen ma diw pour mu ñëw pour mu jox ko jiw yi ñu ne ko déet sëñ bi kooku fàtte woon na bañ yëgaloo la ba nga joxoon mu ngi nett li moom moomu gëm gi mu gëmoon waa ji yegg na ci laata mu doon commencé dem ci darse même biñ ko séexalee ba mu ñëw Dakar kooku day wax ne benn bis dafa toog moom ci place am gis am kenn ku ñëw ci moom daal mu jox ko ma trop wàcc ban bi jox ko euh, kii sonn ci bi mu mu ne ko kanaa kii moo doon sa sëriñ bi mu ne ko mukk kii kay subhanallah man sama mu ne ko sëriñ boobu bu doon ñëw fii bu ma ko séenee diggante fii ba fa fekk taabal yi fi nekk yëpp li fi nekk laay ñàkk sànni bu jàllee ma fay nga xam ko kon gëmoon na sëriñ ba trop waaye bi yàlla dimbalee mu commencé yeewu noonu mu ne bi mu ko waxee loolu mu ne ko da xool kon kooku nga xam ne moom tey xelam demaatu ci jëwrin jooju ba ñëwaat pour bëgg koo jëlaat jiwum wi mu yónnee di ko wóolu kon kooku ñaanal sax def ko ko bi dee tey waaye moom moomu doon wax loolu yàllaa ko dimbale waaye moom it bu ci deewoon it noonu loolu mer rek te bu ko yàlla dimbale woon ba mu jaxasoog waa sunna di déglu seeni waxtaan di dem ci seeni conférence ba yeewu ci eh, loola ko noon it moom la foogoo ne moom loolu ak mbaax la ni ko noon ni sax doo ndax gisutoon sax lii waa ji def même bi mu ko defee noonu moom boobu ma nga ca tool ya terewul est-ce que lay jàpp rek jàpp na sëñ bi xëy na ab aala ko jàpp ak yu mel noonu maanaam moo xam niñu ko mën a interpréter wante fekk ne ay tappale la ak naxaate mais loolu da cee yooyu nag foog ñu ñëw ci nag wax dëgg yàlla nit ñi gaañu topp jàpp ne dañ leen di jëriñ fenn ci waa seen wàllu àdduna wala àllaaxira dara te ñuy ay tappalekat di ay naxaatekat di ay nit yoo xam ne seen bopp seen poos dong ñoo leen yitteel ci bi may départ maa ngi doon wax kooku ñu jox gaynde gi xam naa <coughs> comme Baye Fall léegi dañuy rey wax dëgg yàlla nag li ñuy rey war nañu mën a am nag ñu koy lekk ndax gaa yi léegi gëm rayant lañ ñii dañuy fetalaan dañuy yore kuur gis naa fi benn waaye buñ fi wane ci photo ñu ne dañ ko dóor kuur mu faatu euh, ma gis fi kenn kuñ ne xaw ma lan ñu ne dañ ko fetal dama ma gis Bass Abdou Khadre toog ne baay Fall yi ñoom seen bakkan lañuy joxe même buñ leen di rey ñoom sax duñ jàmbat nga xam ne kooka moom yàlla xam na ne benn doomam wala benn rakkam bokkut ci baay Fall yooyu mukk ci àdduna su ci bokkoon rek du waxee noonu loolu dinañ ci ñëw de amut ñeen ñuy waxoo ci wàllu diine di waxi wax mbaa ñuy jëfi jëf lu dul ne danañ ko indi fi leeral nit ne leen ñii ñëw diine yàlla ak yàlla lañ diine dafa aw penku ñoom xarfu lañ jëm waaw diine yàllaa ko yonentam lañ woo nit ñi jëmal leen ñii ci la ñuy woo nit ñi ak seen intérêt bopp ñoom ñenn ñi dañuy naxaate ñi dañuy wor nit ñi ñenn ñi dañuy njabaraate te lii mooy dëgg doonañ ñëw incha allahu taala Oustaz ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm dégg naa kàddu yi nga dénk mbokk yi loolu dootu ñu bëri ñu ngi ma koy jiiñ waaye jàpp naa ne nii loolu xaw ma yàq der laa koy tuddee xaw ma la waaye ñun dafa tombeek ñu yenn luñ suñ bopp bi àttanul rek moo tax ba léegi faw yenn yooyu ñu seet ñenn ñoo xam ne ñoom lañ ko yenn wala ñoom lañ ciy yenn su ko defee ñu jo dellusiwaat ci live bi de fexe koo jox moom tamit euh, temps ndax yitteel na mbokk yi te it yëg nañ ni ngi ciy jëriñu kon dana laaj euh, ñu jox ko ñu jox ko moom tamit euh, temps bu yelloon asalaamaaleykum Aliou da am kàddu yooy wax dem na xalas toyib bi idnillahi taala ci bis yi ñëw euh, danañ dellu si waat ak ak comme niñ ko doon defee yeneen i vidéo ak yeneen i audio yoo xam ne ni lii ay wax la yu wuuteeg alxuraan ak na ñi koy wax jubluwuñ ci lu dul nax nit ñi ñi koy wax jubluwuñ ci lu dul lu dugg ci seen poos bopp loolu faaw ñu leeralal ko nit ñi naam cheikh bi dellu si waat asalaamaaleykum al oustaz salaamaaleykum kon technicien bi <clears throat> ñoo wax subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk uh, di dig mbokk yi dajewaat ak ñoom incha allah ci samedi bii di ñëw bu soobee yàlla ci même heure waaye ci même seen bii di alquran ak sunna rek di ñaan yàlla mu gërëm suñ mboolee mu wax ak suñ jëf jéggal ñu mboole mi njuumte yi ñuy def uh, man nag sa yi daa ni damaa xaw a jëm mag moo tax ba léegi ay weer laa mujj sax ñu wutal ma ci lay fafal liire léeg-léeg message yi waaye gaañ yi aha Ahmadou euh, Tumb ñoo ngi lay nuyu la ziar euh, macha allah di leen jaajëfal yéen ñëpp amin yaa rabbal alamin fi dawsul ala waaw loolu de moom bëgg nañ ko koy ñaan moom te duñu ko ñaanal leen incha allahu taala danañ dellusiwaat ci bis yi di ñëw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu gërëm suñu wax ak suñu jëf wax ji ak émission bi lu ci jub ci yàlla la moom mi nga xam ne euh, mooy ki kàttan ki am kàttan te man lépp lu ci dëng euh, ñun ñii la ñoo ngi koy jégalu borom bi subhanahu wa taala di mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon seetaan yëpp wasalala wasalam ala nabina muhammad wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon technicien bi mën naa